maa yëg-yëg bi mooy loolu lañu doon mébét te xëy na dafa am yoo xam ne xëy na mi ngi soog a feeñ ci jamono bi ndaxte bu fekkente ne danga nga su leen slogan yi ñu bind fii ci biir man maa ko bindoon ci benn discours boo xam ne mat na léegi mu ëpp na 30 ans yoo xam ne dañoo bëgg kari une nouvelle génération te loolu wax la woon nii rek pour wax du woon wax yi ay nit yàlla nit yi non non wax rek la pour wax euh, li nga mébét kon suñu demee ba gis ne am nañu ay xale yoo xam ne dañ doon wax ay arabisant lañ te may wax ne man baatu arabisant ci boppam wala franco yooyu yëpp ñun dañ koy bañ li ñu bëgg mooy nit na jàng pour xam-xam langue bu mu ko mën a jàng rek na xam-xam waaye nag bu noppee na jàng diine yooyu ñaar boo ko boolee rek da ngay daal di am nit dangay nekk nit boobu dañ doon yem ne ku jàng rek kuñ ñu ne arab ngay jàng rek da nga ne arab ñun jàng ñu arab arab culture la wala civilisation ñun jànguñu culture kenn jànguñu civilisation kenn diine lañ soxla ak xam-xamu diine loolu nag moo tax bi ñu xale yi bu ñu defee nii dafa wane loolu parce que dañ ko daan wax rek te ne boo demee ci ci ci bari ci université bi fu bari wala ci gis nga ci ñoo xam ne lu bari ñoo ko liggéey ci wàllu technique mais duñu sax feeñ parce que man maa wax ne bu ñu bëgg bu ñu fonk publicité mais nañuy informer waaw parce que fii nag réew mi sunu réew mi nag defe naa publicité yéen ma gën a xam am na fi solo lool mais ñun duñ ko def dañuy informer Euh, parce que bu dee rawatina bu dee lu jëm ci xam-xam jàng euh, lii laa ciy def ko fa laa ci dugg defe naa ne nit ku jàng du demee noonu da ngay def ba gis résultat soog ni lii la kon ñun liñ mënoon liñ mën a wax ci lii ñu tey ci jotaay bi rek jàpp nañ ne liñ doon mébét ak di xolaat dog nañu yoon bi yàlla na ci yàlla dimbali. waaw xam nga ñun duñu état ñun privé la ñu liñ ma li ma leen di wax léegi rek la mooy yéen ku ci état jox bourse orienté la. Euh, fu mu mën bu la orienté wala bu la orienté wul yow ñëwal fii ñun ñu jéem la jël jël la jël la en charge parce que bëgguñu seen njàng dog bëgguñu tamit ay moyens euh, kii ko loolu lañ man li ci des nag état la yi itam nag xanaa ñu ngi koy ñaan nag mu jéem a dimbale ñii parce que kat ñii dañoo am daanaka dañoo dañoo doubler seen effort ndax étudiant boo fi gis bu dee ci xale yi dana wax lu mu tuuti tuuti ñetti trois langues parce que li ñu jubloon ci ñetti langues yi mooy dañu bëgg kii nga xam ne mooy def science religieuse yi nga xam ne mooy civil yooyu d'accord waaye ki bëgg a bu ñu jëlee benn année ki bëgg ki nga xam ne dafa bëgg def leneen lu wàllu jëm ci scientifique kooku dañ koy da koy permettre bu demee bëgg a def leneen bu fi jógee mën ko defal boppam te am na ñoo xam ne bu ñu leen di jàngal fii mënuñu ne dañuy jàngalee arab di la jàngal médecine wala dara amuñu ay professeurs yu demee noonu mais li am solo mooy ki ki ngay jàngal na xam li nga koy wax kon ñun li ñu amal solo mooy fexe ba étu xale bi xam làkk bi nga xam ne ku ku lu mu bëgg jàng rek am na ku ko mën a jàngale koo xam ne làkk boobu xam na ko. xam naa daal sunu ndaw yi daal moom añ jàpp naa ne danañu déglu parce que sunu ay doom lañu te am nañ xam nañ li ñuy wax dëgg la ci ñun. waaye ndaw kon nag ndaw Sénégal kon jàpp nañ ñoom itam sunu ay ndaw lañu sunu ay doom lañu li ñu ci wax rek mooy nañu jéem a jàng te muñ te bañ a yàkkamti. waaw boo jàngee am xam-xam mën a muñ bañ a yàq noonu ñi ñëpp de kenn ku ci nekkal fa mu jaar bu la ko waxoon da ngay defee ne du doon si sax kuy dox yaakaar naa yéen ñii tamit li ngeen doon doon ay xale tëb tëb nekk ci fi ndax neexul li ngeen def rek neexul kon xale yi nañu fexe ba am xam-xam suñ ko amee mën a muñ suñ ko mënee muñ mën a bañ a yàkkamti te góor góorlu nag jéem a def dara ci seen bopp loolu daal mooy mooy wax ji waaye sukkandiku nag ci bu jóg nga sukkandiku ci moom loolu de tardel nit rek waaw boo sukkandi bu la boo gëmee yàlla daal sukkandiku nag ci say ci say effort waaw loolu mooy ci am solo ñu ngi leen sant yéen itam waaw ñu leen di sant bu baax parce que wax naa leen ko keroog ne la communication dafa sérieux waaw may wax ne euh, bu ñu man damay wax ne dama ko doon wax benn kii ma ne ko intellectuel dëgg dëgg dëgg journaliste la war a doon moom moom moom la war a doon parce que euh, <laughs> moo nekk ci place boo xam ne lu mu bëgg a xam ak lu mu bëgg a def xel la koy defee wala kii te loolu mooy tax nit ki avancé bu ngeen yemee ci cours rek li leen jëmal seen éthique bi ak déontologie bi kooku du sotti da ngeen di jéem a créer seen yëf waaw defal seen bopp xalaat bu ko defee da ngeen nekk ci niveau bu kawe te bañ a doyalil seen bopp nag bu leen kenn yàpp waaw bu leen kenn yàpp nag na fii génn na fii alors nag loolu